xaalis bi nga xam ne ñoom la ñu jot dépensé recommandation yi mu def ma ngi ci journal bi di Rewmi Quotidien journal bi di Vox Populi ak L'As xëy di ko dëggal yéen kaay gi di leen foo gouvernement face à la presse niki démb Omar Gueye mi nga xam ne mooy porte-parole gouvernement bi yëkkati na ay kàddu wax ci conseil de casserole bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi ñoo ko woote woon àllarba ji nga xam ne moom la ñu génn nee na ñi nga xam ne ñooy ñu def ndax leer na leen ne mënuñoo mobiliser ñu nekk fi di caaxaan te moom Omar Gueye jàpp na ne conseil yoo xam ne ñoo génnoon de noonu la ko jàppee ak bëgg a askanu Sénégal yéen a kaay gi de la témoin ne na conseil de casserole bi jurul jàmm ndax am na ñaari ay paaka lañ leen jamatee am na ci ak dee a xabaar yi waaye nag ñoom ñoo ngi yuuxu victoire nee nañu am nañu victoire jamono ji bu doon ab référendum askan mi ñoom la faral ndax ñoom nat nañu seen bopp te li nga xam ne mooy conseil des casseroles yi dafay faral di wëy programme la te nee nañu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin rassemblement bi nga xam ne bëgg nañu ko amal ci Sénégal gi yëpp ñoom nee nañu danañu ko def mu neex Macky ak mu ñàkk a neex Macky Sall xamul waxtaan xamul yeela li xam mooy jàmmarloo maanaam xeex loolee la Macky Sall xam ndax déggulul sax ñi xam ne ñooy kilifa dini te Macky Sall bu ñu ko bàyyi ci lii mu nekk maanaam ñetteelu mandat la bëgg a am ci bopp réewum ak xam ne ñooy takk der yàq réew mi a ndax bi mu dikkee ak léegi lu toll ci juróom-ñaari téeméeri ci nit ñoo xam ne jàpp nañu leen ba dugal leen ci kasu bi te nag Macky Sall bëgg-bëgg ma maanaam mooy jàpp seen tedd liste ndax Guy Marius Sagna mi nga xam ne teg nañu ko loxo sa diwaanu Ziguinchor xam na ne dafa am enjeu Abdou Bara Dolly mi nga xam ne moo nekk tête liste département bu Mbacké ñu teg ko loxo Macky Sall xam na ne foofee dafa am enjeu Ahmed Aïdara mi nga xam ne teg nañu ko loxo ca diwaanu Guédiawaye Macky Sall xam na ne foofee dafa am enjeu te moo nekk deuxième ci liste département bu Pikine te Macky Sall dafa bëggoon a jàpp Barthélémy Dias Macky li mu bëgg mooy jàpp seen tête de yi nga xam ne maanaam gox yooyu dafa am enjeu ngir bëgg gagner élection yi waaye nag yéen kaay gi di vrai journal xëy di laaj nee na ana ñi nga xam ne ñoo doon défendre Macky Sall yéen kaay gi di Les ak L'Observateur wax na ci force spéciale yi nga xam ne wax nañ ne dañoo jugoon ngir bëgg taal réew mi am na ci fukk ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi nee na enquête li nga xam ne wane na ko doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye daan na koy passé yéen gi di réew ko di cee xëy di ñu xibaar naan ñu recours bi nga xam ne maître Abdoulaye Tall dugaloon na ko cour suprême ngir ñu supprimer parrainage bi loolee cour suprême daf koo gàntal ni ki démba na nga xam ne mooy am ci réew mi ba ay nit di ci faatoo am ñu ci ami gaañu-gaañu am ñu ci teg seen loxo loolee lépp parrainage bi moo ko waral te a rek doy na woon ñu jël parrainage bi gas ba mu xóot daal di koy suula maître Abdoulaye Tine moom nag tàyyiwul ci mbir mi ndax nee na dina saisir ñi nga xam ne ñooy commission bu CEDEAO ngir parrainage bi nga xam ne Sénégal ma ngi koy doxal ci anam boo xam ne jaarul yoona yéene kaay gi de la soloy xëy ñu xibaar naan ñu Ousmane Kabiline Diatta mi nga xam ne moom la ñu njortu ne bu ñëwoon Dakar bëgg fee def ay ñaawteef yéene kaay gi ne na mandat nañ ko dépp niki démb journal bi di Sud Quotidien bi ñu dénk wàllu wàllum xar yi nema élevage démb yëkkate nay kàddu dalal na xelu askanu Sénégal ci tëbaski gi nga xam ne moom la ñu ma la yéene kaay gii de sa njiitu réew di président Macky Sall nee na dafa bëgg a soppar ñi corniche ouest bu Dakar lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay milliards la bëgg def ci corniche ouest bi bam na boy yéene kaay gii di direct news nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk seen o jamono ji mer nañu ba mara détaillé ndax dafa